sëriñ Abdourahim Dem sëriñ Abdourahim Dem mu ngi feeñ jamono nag ci atum 1921 nag ci dëkk bu ñuy wax woobe woobe nag mi ngi nekkoon nag ci wetu altu daaru salaam ci wetu Sonatel bi dëkk boobu di woobe nag fi la sëriñ Abdourahim Dem nag feeñee jamono nag ci atum 1921 di doomu sëriñ Mouhamadou Dem ak soxna Faati Si ñaari jëmm yooyu nag ñoo meññi nag sëriñ Abdourahim Dem mii moom bi mu feeñee jamono nag ci atum 1921 waajuram sëriñ Mouhamadou Dem sëriñ du Buso nekkoon imaam nag ci Taayif Mbàkke la sëriñ Mouhamadou Dem nag yónni woon njaareem ci ku baax ki sëriñ Touba xaadim Rasuul ginnaaw bu sëriñ Modou Bousso nag eggee njaareem la fa fekk nag ku ñuy wax sëriñ Alioune Bousso sëriñ Alioune Bousso moomu nag moo dem nag ci ku baax ki sëriñ Touba xaadim Rasuul di ko xamal ne daal sëriñ Mouhamadou dem nag bu woobee nee na nag soxna Faati Si nag dafa am gan ginnaaw bu Seexul Xaadim nag laajee nag sëriñ Alioune Bousso soxna Faati Si nag góor la am nag wala jigéen sëriñ Alioune Bousso nag mi ngi xamal Seexul Xaadim sëriñ Mouhamadou dem nag góor la am Seexul Xaadim nag di ko xamal ne su demee nag nañ ko tudde nag Abdourahim ginnaaw bu sëriñ Alioune Bousso ñëwee nag la wax loolu nag sëriñ sëriñ Modou Bousso sëriñ Modou Bousso nag solaat aw dàllam nag ñëw woobee xamal sëriñ Mouhamadou Dem ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim nee na gan gii nag nga tudde ko Abdourahim kon lool moo waral nag turu Abdourahim wi ndax Cheikhul Khadim nag moo ko joxee am na nag ñu mu bokkal soxna Faati Si ak sëriñ Mouhamadou Dem ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mor Xari Dem ibnu soxna Faati Si ibnu sëriñ Mouhamadou Dem sëriñ Mbàkke Dem ibnu soxna Faati Si ibnu sëriñ Mouhamadou Dem soxna Faati sëriñ Mouhamadou Dem ak moom sëriñ Abdourahim Dem ibnu soxna Faati Si ibnu sëriñ Mouhamadou Dem ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ak moom muy ñeent ñu wax leen sax njaboot gi mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan sëriñ Mor Xari Dem ibnu soxna Faati Si ibnu sëriñ Mouhamadou Dem sëriñ Mouhamadou Dem sëriñ Mor Xari Si nag la ko fayee xalifaam nag mooy sëriñ Moustapha Dem nag jamono jii ñaareelu doomu soxna Faati Si ak sëriñ Mouhamadou Dem mooy sëriñ Mbàkke Dem fi la nekk nag ba jàng alxuraanul karim nag ba noppi jutta samp kër ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag la ko sëriñ Mouhamadou Dem nag tuddee sëriñ Mor Faasa Si moom nag jutta taxawal kër laataa muy taxawal kër nag la génn àdduna soxna Anta Dem bintu soxna Faati Si bintu sëriñ Mouhamadou Dem sëriñ Mouhamadou Haza Si nag ci Touba Belal nag lañ ko jébbaloon soxna Anta Dem mook sëriñ Mouhamadou Haza Si nag bu Touba Belal nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Si maam Maxtaar Si maam Xari Si sëriñ Fàllu Si soxna Awa Busa Si soxna Jaañ Si njaboot gi nag la soxna Anta Dem am ak sëriñ Mouhamadou xaasa si njaboot gi itam nag ñooy jarbaati sëriñ bi laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ Abdourahim Dem ñu wax leen nag njaboot gii mu bokk nag ñoom ñooy ñan waajuram sëriñ Mouhamadou Dem ci mag ñi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag la bokkoon laataa muy ñëw nag ci Seexul Xaadim nekkoon na itam nag ab jàngalekat nag ci loxoy sëriñ Mbàkke Buso booba nag sëriñ Mbàkke Buso nag mi ngi ci Lasar booba itam nag sëriñ Mouhamadou Dem sancoon na ab dëkk nag bu tudd mi ngi woon nag fi tolloog bi nag jàpp metti itam nag moo fa amoon ba tax itam nag ñaari dongay sëriñ Mouhamadou Dem nag génne fa àdduna sëriñ Mouhamadou Dem itam nag bindoon na ak xasida itam jagleel ko itam nag dëkk boobu nag di woobee di jooy itam nag ak naqar itam nag wu mu fi am jàngal na itam nag ñu takkoo takkoo takku ci yoonu murit nag moo xam nag njabootuk sëriñ Touba Seexul Xadiim gi wala lenn itam nag ci sëtti Seexul Xadiim yi moom sëriñ Mouhamadou Dem nag Seexul Xadiim itam nag moo ko jëlee itam nag ci dëkk bi nag di woobee indi ko itam nag njaareem jox ko fa itam nag daara muy jàng ka 2007 nag la génn àdduna njaareem waajuram wu jigéen nag di soxna faati si doomu sëriñ maalik baasin si la sëriñ maalik baasin si itim nag ci jàmbaari toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool itim nag la bokkoon ba tax na itim nag gànnaar la fekk seexul xaddim gànnaar itim nag la jaayanteeg seexul xaddim ci dëkk bu ñuy wax mbaabaan itim nag la génnee àdduna di dëkk bu mu sancoon ñaari jëmm yu sell yooyu nag ñoo meññ sëriñ abdourahim dem mi bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ muhammadu dem nag moo ko dalal alxuraanul karim nag ci jébbal nag Baye Modou Bousso ginnaaw sëriñ Modou Bousso la sëñ Abdourahim Dem nag dem ci dëkk bu ñuy wax Gosaas ci taalibeb sëriñ Mouhamadou Dem nag bu fa nekkoon bu ñuy wax nag sëriñ Mbay Caam ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Mbay Caam nag la ñibbi nag ci waajuram sëriñ Mouhamadou Dem sëriñ Mouhamadou Dem nag moo ko tàmbalee jàngal xam-xam ginnaaw bu mu ko jàngalee xam-xam nag ba noppi la ko sëriñ bi nag fas yéenee tarbiya yabal na ko nag ci dëkk yu baree baree baree baree bari moom sëñ Abdourahim Dem nag ngir mu dem fa waaye dëkk bu ne nag bu fa demee du fa yàgg ab diir bu néew moom sëriñ Mouhamadou Dem nag fekk ko fa wala mu bind ko ab lettre itim di ko wax itim nag na jóge nag ci dëkk boobu ci dëkk yi nga xam ne nii nag dem na fa nag moom sëriñ Abdourahim Dem ci ndigalul waajuram ñu mën cee ràññee nag dëkk bu ñuy wax Taayif nag ñu gën koo xam ci sil maamam sëriñ Malick Basin si nag moo fa nekkoon ba mu fay dem nag keroog rakkam nag sëriñ Mbàkke Dem mi mu bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen nag la fa àndaloon ak taalibeem bu ñuy wax nag sëriñ Idrissa Diagne ak ku ñuy wax nag sëriñ mu fa defee ab diir nag la ko fa waajuram jële yóbbu ko nag dëkk bu ñuy wax Busra ba mu demee waaye itam nag fekkoon na fa sëriñ Abdul Karim Mbàkke moom cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag moom mag ma ginnaaw bu mu nekkee Busra nag ab diir la ko fa waajuróom jëlewaat moom sëriñ Abdourahim dem yebal ko nag mu dem ci dëkk bu ñuy wax Kura sëriñ Moustapha nag moo fa nekkoon ginnaaw bu mu defee Kura nag ab diir nag ci loxoy sëriñ Moustapha Sy la ko fa sëriñ Mahamadou dem nag jëlee ko nag mu dem ci dëkk bu ñuy wax Daaru Nahim ku ñuy wax sëriñ Mbay Si nag moo fa nekkoon ginnaaw bu mu defee ab diir nag ci loxoy sëriñ Mbay Si nag ci dëkk boobu nag di Daaru Nahim la ko fa sëriñ Mahamadou dem nag jëlewaat nag moom sëriñ Abdourahim dem yabal ko nag ci dëkk bu ñuy wax Manna maamam sëriñ Moor Xari Si nag moo ko sanc ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Si nag moo fa nekkoon ginnaaw bu mu defee Manna nag ab diir nag ci loxoy sëriñ Maxtaar sii la ko fa sëriñ Mouhamadou Dem jëlewaat yabal ko nag dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam sëriñ Moor Xari Si nag di maamam ba tey nag moo ko sancoon ku ñuy wax sëriñ Aadama Si nag la fa fekki woon ginnaaw bi itam nag la ko fi waajuram jëlee bind ko ab lettre nag di ko xamal ne na jóge nag ci tundu Bambug woowu ñëw nag ci Kaffrine dëkk bu ñuy wax Koje nag la ko wax nag mu jaar fa Koje nag mi ci diggante Kaffrine ak ñuy wax màkka yopp ginnaaw bu mu fa defee ab diir nag la ko sëriñ Mouhamadou dem nag di wax itam nag mu jóge foofa mu dem nag dëkk bu ñuy wax mbedom mbedom nag mi ngi ci wetu dëkk bu mu jógee foofu nag la ko waajuram nag di xamal ne na dem nag dëkk bu ñuy wax nag ceket ku ñuy wax nag sëriñ Abdoulaye Diagne nag moo fa nekkoon ginnaaw bu mu demee ceket nag ci sëriñ Abdoulaye Diagne waajuram itam sëriñ Mouhamadou dem nag sàkk woon na itam nag ci sëriñ Abdourahim dem nag mu jóge foofu dem nag ci dëkk bu ñuy wax sookoon ku ñuy wax nag El Hadji Ahmed dem nag bu sookoon itam sëriñ Ahmadou Dem nag bu sookoon ab diir la ko fa sëriñ Mouhamadou Dem nag jëlee di ko wax nag mu ñibbisi njaareem ginnaaw bu mu ñibbisee njaareem nag ab diir nag ci loxoy waajuram nag sëriñ Mouhamadou Dem sëriñ Mouhamadou Dem na nag ci doomam nag sëriñ mu dem nag ci dëkk bu ñuy wax Touré Mbond ginnaaw bu mu nekkee nag ci dëkk boobu nag di Touré Mbond na sax ak njabootam nag gu fa feeña jamono ginnaaw bi la ko fa jëlee yóbbu ko nag ci ku ñuy bu ñuy wax jëm wélli ginnaaw jëm wélli googu nag la dooga ñibbisiwaat njaareem ci loxoy waajuram nag sëriñ Mouhamadou dem nag di doog a xam ne nag doomam ji nag tarbiya bi mu bëggoon ci moom sëriñ Abdourahim dem nag def na ko mu jox ko nag daara ji nag muy jàng ka jàngale mu sampal ko kër boole kook soxna suñuy wax nag soxna jama sekk ñu gën koo xam nag ci soxna ñanga soxna jama sekk mi nag ñu gën a xam nag ci soxna ñanga am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Malick dem sëriñ Moustapha dem sëriñ Xaadim dem ñii nag ñooy njabootuk sëriñ Abdourahim dem nag gu mag soxna si mu njëkk a dëkkoo nag di soxna ñanga sekk nag mu leen meññi mu wéy nag des nag njaareem nag ci loxoy di jàng ka jàngale ba am bis na ku ñuy wax sow nekkoon fonctionnaire nag ci état nag bu Sénégal di liggéey itam nag ci kër gi ñu tudd chemin de fer nekkoon nag doomu ndar ginnaaw nag bu ko état bi nag jëlee ndar nag affecté ko nag ci dëkk bii nag di jurbeel sow moomu nag bi mu ñëwee nag kër Cheikh nag la féete woon xelam nag nekkoon na nag ci mu taxawal nag école ginnaaw bu mu demee nag ci autorité coloniale yi fi nekkoon sàkku itam nag ci nguur gi ñu jox ko autorisation nag mu mën a taxawal nag ab école bi muy wut nag ku mën a jàngale lañ ko xamal ne daal doomu sëriñ Mouhamadou Dem bee ñu tuddee nag Abdourahim dem dem soo ko jëlee daal li nga bëgg nag ci ku la jàngaleel nag da nga ko mën a am ginnaaw bu mu ñëwee nag waxtaan ak sëriñ Abdourahim dem nag ba noppi la ko sëriñ Abdourahim dem nag nangul mu jël ko nag muy jàngale nag ci kër cheikha bi ñu affecté sow moomu nag ngir mu jógee njaareem na la sant nag sëriñ Abdourahim dem nag gërëm ko di ko xamal ne daal école bii ma la joxoon këyit yi nga xam ne nii administration bi nag moo ma ko joxoon nag mi ngi nii saa boo ko soxlaa nag mën nga koo jël féeti woo ko ci ko nag sëriñ Abdourahim dem nag jël fop école ba nag jëlee ko nag kër cheikha indi ko nag ci njaareem taalibeem bu ñuy wax nag Idrissa Diagne néeg ba mu dëkkoon nag la sëriñ Abdourahim Dem nag jëloon defoon fa nag école ba nag di jàngale la am kenn nag ci ñi àndoon ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dem ci sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di ko xamal ne sëriñ Abdourahim Dem nag ubbi na nag école bu arabe ma ngay jàngalee nag ci këram bi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag ñëwee njaareem la woolu nag doomu sëriñ Mouhamadou Dem bi nag di sëriñ Abdourahim Dem sëriñ Abdourahim Dem nag di ko xamal ne sow mi ma doon jàngaleel daal moo ma jox nag këyiti école Diakha indi naa ko nag sama biir kër néeg Idrissa Diagne falaa def école ba itim nag di jàngale ci la sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma woolu nag sëriñ Moustapha Mbay nag mi ko doon dawalal wax ko itim nag mu génne oto bi garage boobu mu nekkoon mu jël garage ba nag jox ko sëriñ Abdourahim Dem ngir nag mu di fa jàngalee ginnaaw buñ ca tegee ab diir nag la jël nag ci kër gu mag gi fa tolloo nag buntub sëriñ Paate Joor Amar ba dagg ko nag def ko ay classe jox ko nag sëriñ Abdourahim Dem nag mu wéy nag di fa jàngale sëriñ Dem njëkk a génn nag ci yoonu murit nag ci wàllu araaba njàngaleem arab nag bu ci yoonu murit sëriñ Abdourahim Dem nag bay na ci nag waaru yaatoo yaatu sow moomu nekkoon fonctionnaire ci chemin de fer te jébbaloon ko nag école arabam boobu ginnaaw buñ affecté sow nag dem jébbal école arabe bi nag sëriñ Abdourahim Dem ginnaaw bu ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag yëgee taxawu na nag doomu sëriñ Mouhamadou Dem boobu tax na itam nag sëriñ Abdourahim Dem tàggat na itam cadre yu baree baree baree baree bari nag ci yoonu murit ci biir cadre yooyu nag jaar nag ci loxoy sëriñ Abdourahim Dem ñu man cee cee ràññee sëriñ basiiru mbàkke bu cheikh mourtada mbàkke sëriñ soe bu faal bu sëriñ moustapha faal sëriñ moustapha faal bu sëriñ cheikh faal baayub góor sëriñ moustapha loo bu gosaasa sëriñ basiiru buso sëriñ maxtaar jóob bu sëriñ tafsir jóob nekk imaamu grande mosquée bu njaareema sëriñ cheikh loo gosaasa sëriñ moustapha loo bu gédé nekk sëriñ daara ci njaareema ak cadre yu takkoo takkoo takku ñu mën cee ràññee sëriñ moustapha mbàkke moom sëriñ cheikh mbàkke gay ndafaan ma noteera sëriñ maam sugu moom sëriñ tafsir sugu sëriñ yuusufa mbàkke bu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma sëriñ ab Abdourahmane Diop imam Mbay Ñang bu aviation nekk imam itam ci aéroport bu Ndakaaru sëriñ Maam Mor Dem bi nekkoon ci aussi sëriñ Thiam universitaire Ibrahima Thiam bu Thiès sëriñ Thierno Jaxate bi nekkoon commissaire au pèlerinage docteur Saliou Salam Cheikh Omar Diop inspecteur sëriñ Moustapha Dem sëriñ Mbay Dem sëriñ Moustapha Diop Njekk sëriñ Cheikh Ndiaye sëriñ Mbay Falloo sëriñ Mbacke Dem sëriñ Malick Dem Oustaz Cheikh Sow bu Njaareem sëriñ Matar Cobaan sëriñ sëriñ fàllu busa tàmba sëriñ abo buso sëriñ abdul muhayminu moom cheikh mourtada mbàkke sëriñ galas njaay sëriñ mbàkke bu gede sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ abdul aziz baara sëriñ as ture bu madina ture ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay cadre nag yu sëriñ abdourahim dem nag tàggat ginnaaw école arabe boobu nag bi mu ko taxawalee ba tàggat nag kaadar yooyu ku ñuy wax nag sëriñ ibrahima faal bu cees nag la sëriñ abdourahim dem nag njëkk a jël nag ngir muy jàngalee foofu école arabe nag bu nag ci yoonu murita ginnaaw Serigne Abdourahim Dem nekkoon nag kaadi itim ci tribunal bu njaareem li ko dale nag ci atum ba ci mois de mai moo démissionnel boppam nag ci kadi boobu wuutu na waajuram nag Serigne Mouhamadou Dem li ko dale nag ci le 26 ba ci atum bi jàmbarte googu mu amoon nag ak xarañte googu tax na itim nag mboolem kilifa yi fi newoon nag ci wàllu administration respecté woon nañ nag doomu Serigne Mouhamadou Dem bi takkal nañ ko ay médaille li ko dale nag ci président de la république Abdou Diouf jaareel na ko nag ci gouverneur nag yi nekkoon nag njaareem moo xam ordre national du lion ordre national du mérite ba ci diplôme bii nga xam ne nii nag président de la république nag Abdou Diouf nag moo ko woowoon nag ci ndakaaru ngir takkal ko ko muy grand croix de l'ordre national nag du lion keroog nag bi ko ko Abdou Diouf nag di takkal nag ci ndakaaru ku ñuy wax nag ndonga faal bokkoon itam nag ci garde présidentielle yi dëkk nag ci quartier kër Cheikh Anta nag ci njaareem di doomu Abdoulaye Malick Kumba Faal la liggéeyee nag ci sous nag bu njaareem ginnaaw bu mu eggee ndakaaru nag ba Abdou Diouf nag di takkal ñeneen itam ay médaille mi ngi ko doon xamal nag yow sëriñ Abdourahim Dem baa bëgg nag nga xaar nag ba ma takkal ñëpp nag ay médaille nag ba noppi ñu doog a nag séq waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatu ndax yow kat ko xarañ nga nag ci réew mi te jàmbaar nga itam nag ci réew mi te bëgg naa itam nag nga ñaanal ma moo tax itam nag bisub keroog itam nag pale nag la yendu ginnaaw bu mu fa jógee nag la delsiwaat njaareem wéyal nag ab taxawaayam nag ci diggante jàng ak jàngale ndono loolu nag la doon nag Mamadou Dem ba ni mu génnee àdduna nag ci atum bi nekkoon na tafsir itam nag ci njaareem ku am relation nag ak mag ñi toppoon nag ci ginnaaw Cheikhul Khadim wala mag ñi nga xam ne nii nag ñoom la moromanteel nag ci ëttub Cheikhul Khadim bi ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Touré nag bu Madina Touré sëriñ Mahmoud Sill nag bu Taïba Sill sëriñ Cheikh Lo Gossas sëriñ Mbaye Ndiaye Golbe Baye sëriñ Ndiaye Guédé sëriñ Alioune Ndiaye bu Guédé sëriñ Mor Mbaye Cissé bu Njaareem sëriñ Malick Dieng bu Njaareem sëriñ Mbacke Diouf bu Njaareem noonu mu ko amee woon nag ak mag ñi bokkaloon njaareem bi ni la ko amee woon nag ak mboolem njabootu ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul la ñu mën ca ràññee nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ku jaxasoo woon ak moom la ba tax na nag nekkoon nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag daana ko yónni fu bari bari bari ci biir réew mi am na accident bu metti sax bu daloon sëriñ Abdourahim Dem ci yónneenu sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag la ko dale woon sëriñ Ibrahima Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasuul bi sëriñ Abdourahim Dem nag nekkee nag ci bare bari daa ko yónni itam nag lu bare bare bare bari fu masaa di dem itam nag daana ànd ak nag sëriñ Abdourahim Dem naw gu mu nawoon nag doomu sëriñ Mouhamadou Dem bi sëriñ Saaliwu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon nag sëriñ Abdourahim Dem la ndax waajuram soxna Faati Si nekkoon na yaayu daara sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke loolu itam nag taxoon na sëriñ Saaliwu Mbàkke nag fonkoon nag doomu soxna Faati Si bi di sëriñ Abdourahim Dem sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ku nawoon sëriñ Abdourahim Dem la ba tax na lii di njàngaleem ba ginnaaw yàlla bu ci sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag sóoboo génn sóobu gi ci sëriñ abdourahim dem nag la jóge ku ñuy wax sow nekkoon fonctionnaire nag ci chemin de fer bu njaareem ginnaaw bu mu mayee nag këyit école nag yi mu doon jàngalee ci njaareem te sëriñ abdourahim dem nag doon fa jàngale ginnaaw bu mu ko jébbalee sëriñ abdourahim dem ba sëriñ abdourahim dem nag indi ko njaareem waxtaan ci ak sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma taxoon na itam nag sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma itam nag gën a sóobu nag ci wàllu njàng ak njàngalee sëriñ abdourahim dem itam nag nag loolu lañ wéyal sëriñ mbàkke soxna loo ginnaaw sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma itam nag sëriñ abdourahim dem ci moom itam nag la jokku woon bi mu génnee àdduna sëriñ mbàkke soxna loo itam nag moo sàkku itam nag si sëriñ abdul akim mbàkke mu taxawu nag doomu sëriñ mouhamadou dem boobu yabal itam nag ab taawam nag sëriñ moustapha mbàkke mouhamad itam nag ngir mu fekkee ko moo sàkku itam nag ñu denc ko njaaree sëriñ xaadim mbàkke ibnu cheikh mamadul moustapha mbàkke ku nawoon sëriñ abdourahim dem la ba tax na itam nag amoon nañ ak jaxasoo zalika tudd na sëriñ Abdou Lahad Mbàkke doom tudd na cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke moom xaadim rasool dooma tudd na sëriñ cheikh Mbàkke gaynde Fatma doom tudd na cheikh Mamadou Fadal Mbàkke dooma tudd na sëriñ Mbàkke soxna loo doom tudd na maamam sëriñ Malick Basin si dooma ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñu mu tudde doom moom doomu sëriñ Mouhamadou Dem bi sëriñ Abdourahim Dem nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu gàtt nag bu ko tëral ci bisub ajjuma nag ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 10 octobre 2003 vendredi 10 octobre 2003 ci kër gi mu amoon nag ci njaareem ci kër googu nag la génnee àdduna ñu yëgal ko nag kam yaakaaroon di sëriñ mbàkke soxna loo booba nag fekk nag sëriñ mbàkke soxna loo nag mi ngi nag ab tukki nag ci Europe doomam sëriñ Moustapha Ngeeñ Mohammed la yebal nag ngir mu teewal ko nag ci bisu bu mujj bu sëriñ Abdourahim Dem sëriñ Abdul Akim Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci ci teewaayu nag kilifa yu takkoo takkoo takkoo ko ci njiitul sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed moom sëriñ Mbacke soxna loo sëriñ Fàllu Mbacke moom Cheikh Mamadul Bachir Mbacke sëriñ Mouhamadou Haza si bu Touba Belal ak mbooleem cheikh yi nekkoon nag ci dëkk bu sell boobu nag di njaareem soo delloo nag ci marché bi nga xam ne nii ku ñuy wax sëriñ Cheikh Ndiaye nag moo ko ko bindal mu ngi ñuy wax nag doomu sëriñ Mouhamadou Dem nag bi mu doon sëriñ Mouhamadou Dem nag moom mooy kan kilifa la goo xam ne nii nag ku yaakaaroon sëriñ Touba Cheikhul Xadim la ku jàngal itam nag ñu baree baree bari la nag ci yoon wi doomu sëriñ Mouhamadou Dem Cheikh Ndiaye tam mi ngi wax nag ay jikkoom melokaanam ak taxawaayam nag ci yoon wi ci diirum nag li muy dund bi mu fi bàyyikoo nag barke bi nga xam ne nii itam nag bu sañoon mu topp nag ak njabootam ak ñaan itam nag gum ko ñaanal mu dajeeg waajuróom ak Serigne Touba Seexul Xaddim mi nga xam ne itam nag ci ab tarixam nag la nekkoon ak mbooleem nag jullit yëm fa fekk lu yaatoo yaatu daal lañu ci Serigne Cheikh Ndiaye di wax ci doomu Serigne Mouhamadou Dem bi nag di Serigne Abdourahim Dem ñu teewlu ko bismillahi maa ngi deeti marsiyal jàmbaar ju mag ja yàlla buur ba darajaal muridullaahi maa ngi leen di jaale sunu maam ju baax ja buur ba yàlla faale ma fàtte leeti sunu maam abdurahim ma sant dem ngir jëmmi yàlla may karim bu ngeen ma digloo naa fi wax astuuti ci ay mbiram ndax xel di dellu seeti sëriñ dem mbër ma woon fa njaareem kookaati baayam seex ya dañ ko daa yeem sëriñ namar dem bamba moo ko seexal jébbal ko mbooti alxuraan moo géejal mufti la woon mësula gak ci masala aabit la woon mësula tàggoog satala taarif na ay téere xamal nay foore sàkk na ay kàngam daawul dóore ma wax la astuuti ca gaayam jàngal nga xam ne waaju mel ne moom daa yombul ma njëkke seex xabibu may imaamu doomi sëriñ mbàkke kajoor mañ taamu sëriñ mamoor mbay siise moo ko jàngal jébbal ko taawam ba kee di ponkal seex ma si la mum turendul la sëriñ ma dem moo ko jàngal fóore la seex saalihu seex abdu xaadir moo leen xamal mosul di xotti saatir ma njëkk laa wax ak ñoom ci duniyaa ak la ca xew nga xam ca mbóor yaa fi xaama bam sasin la feeñ ca woobe suufas bawal murid ya jug di joobe baayam ba yónnee ca sayxinal xadim xibaar ko mbir ya bambanaa abdourahim ba mu matee dal la ko baayam ba yabal fa sayxi moodu busa mu daal koy dalal ma mamar dem moo ko jàngal xam-xam jàng ak liggéey la boole woon moo am ndam baay baa ko jàngal naxu ak tawxiidu ak fiq ak tasawuf tajwiidu naxu wal aruudu wal bayaanu baay baa ko jàngal yooya moo kiimaanu baay baa ko jàngal abdourahim ku ni mel du makuraas manaafiu turaab moo ko taarif abdourahim dem joojewaay muy aarif la mu xamal quraan ci doomi soxna mënee su lim ay ndabam fenkan mosula wàcc mosula tekki ak der ba bëccëg fu mu toole dëkke kër-kër fu mu mas toog Seex Bàmba lay waxtaane mbaa alxuraan wallahi moo kiimaan rabi abdun yaqra'ul qur'aana walil jinaani laa yura sam'aana ci lii la sax ba alxuraan seexal ko fu mu mas a toog seytaane daw féexal ko man bi ka laa saqaafahu saytaanu wa sarrahul mawdihu wal awtaanu mosula topp ba kanam ca lam ko laaj jël aw sasam di wàññi ak di xaaj matal na mboolem da ko baayam batale ci alxuraan te lii ma wax duy demale kitaabullaahi tekki sunnatu rasul mooy di mbiram door wa tey dami rasul tey lu mu jox Cheikh Mbacke ci hidaaya mu ne su ko lim mooy borom hinaaya barakatul quraani faaxat sana xaari ihi yafu soxay soxnaa loolaa taxoon Cheikh Abdou masula wàcc masul di yox yoxi te masula dajj saa yu xeyaa quraanu lay waxtaane bu ñuy nelaw xadiis yi lay ngomlaane foo mas a gis jëmmam ja toog di samandaay moo kaamil quraan ba ñooy bokk jataay du dox di ubbi kontu mbaa ku ñëw mu faj sa xaajo mooy badru budur miskiin yi ak baayo yi ak faqiir yi ñépp a ko daa dikkal kasa saqiir yi ku tabe woon na mus la nay ci xam-xamam ku ñëwle woon ay wax la moomoon làmmiñam baraana waaju mel ne man di ñaanale ndekete yoo ci ay mbindam lay toxale yal na koy yàlla dolli ay maqaama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 boobu itam nag saa bu dikkaatee mbooleem njaboot gi nag maasee di ko ci fàttaliku ci ñu tudde nag ak màggal ci dëkk boobu mu génne woon àdduna nag nekkoon fa nag di njaareem ñuy ñaan ca ka sëriñ tubaa waxoon ne nañ ko tudde abdourahim di doomu sëriñ mouhamadou dem bu njaareem yàlla nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem te wanale ko nag mbooleem nag gaa yu baax yam fekki lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla ko suñ borom saafara ci darajay cheikhul xaddim moom nag nekkoon njaareem amiin nekkoon njaareem amiin nekkoon njaareem amiin